yéen commerçant yu Argentine xewal a ngi nii ku ko ci romb di nga romb sa njariñ ak butigu Touba koom nekk once Mitre Grelia 27 57 premier Picho local 58 Seran bay Saliou Samb mi ngeen miin ci njaay mu yomb ma rafet lool masala yokk na cere tax mu daal di dolli ñeex indil na leen ay kap yu mucc ayib lool masala rafet lool ci bépp modèle bu ngeen ci soxla waaye it bépp marque bu ngeen ci soxla man ngeen ko fa am ay pré bultu yomb lool yoo xam ni it bu ngeen ko doon wër du ngeen ko gis fenn fu dul ci bitigu Touba Xelkom yéen ñi nga xam ni di ngeen ci soxla it jënd lu yamamaay jàpp leen ni am ngeen fa pré boo xam ni bu mucc ayib la lool macha allah fu ngeen ban ni nekk ci biir Argentine moo xam ci capitale bi la wala yéen ñi nekk ci province yi jël leen numéro bi ci suuf. ngeen def seen commande incha allah di ngeen ko jot na ngeen ko bëggee ci prix yu mucc ayib lool kon daal jàpp leen ni jënd ay cab moom jeex na fi ak boutique gu Touba Xelkom yéen mbokk yi bagaas yi ngeen fa daan jot it jàpp leen ni incha allah bu ngeen ñëwee da ngeen ko fekk ni ngeen ko fa daan fekkee waaye it ci ay prix yoo xam ni dafa dolleeku nag ci gën a yomb lool ak boutique gu Touba kom daal macha allah da ngay jënd sa bagage yu rafet mucc ayib lool. ci ay prix yu yomb loolu macha allah boo defee nag kon dañuy daal di déglu rek kàddu yi Baye Saliou mu wax li mu indil. asalaamaaleykum mbokki diaspora bi waa xel Xelkom ñëw leen di nuyu. waa si nañ fii ci Touba Xelkom mbitre 27 57. yaakaar naa gars yi ko xam bëri nañ sax ñoo ngi fii danoo yeesalaat mbir mi rek moo tax ñu koy yëgle nii. ñu ngi ci style verano bi di ko préparé ku bëgg pratiquement. cab yi nga xam ne nii mooy cabi plané yi ak courba yi yëpp am nañ ko am na modèle yi yëpp te njëg gi xéewle na fi la xewal gi nekk maanaam lépp lu nit bëgg rek boo ñëwee dinañ la ko yombalal